Toute la famille veut du Mélolac. Lac est un produit fabriqué par Senfood Sénégal. Soclin technologie pour ngir EBS, e un label, une référence. Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Ce t-shirt c'est un petit garçon, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est un papa qui se dit « Ça, c'est mon fils !» gamme complète Magic sourire bi marché Sénégal yup. Apton, une nouvelle gamme de lait de corps et crème hydratante pour prendre soin de toute la famille. Apton, allié bien-être et bien paraître. Yes Hotel, Dakar Almadi. Radio Leral 96.1, encore plus proche de l'info. Avec Radio Leral le Bravia Hotel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valets chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. Commandez en ligne sur www.6.9.sn. 6.9, la marque de l'élégance. Si j'étais un tableau, je serais peint par Modougué. Modougué, artiste peintre. Riam Art. Karma remercie ses partenaires Complex Sophia, Nebedai, Michel, Ibuturi Collection, NFN, Omarouali Ali Fashion, Ruby Watches, Milesi, Influence, Alia Barré, Deka Paris, M60, Nabo Création, Kova, Aflux Dialab, Cher Casual, Makaiti, ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru yeah blue eye def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fa xam nga lu ma lay xamal benke ñenke yi moo war a dakk gis nga man maam ana place ba ma toogee woon jeex na bis ni ki tey sa yaay dafa ñibbisi te waajur danga ko war a jox cër cër bu mat sëkk nag ndax joma ko yóbbu woon waaye fulla delloo si na ko te loxo mosul jeex ci yow benn yoon lépp lu ma waroon def ci yow def na ko léegi dama bëgg nga jox ko cëram dootoo xale magum jëmba nga te loolu lebal sa waajur tey ëllëg sa njaboot mën na la koo fay waajur du morom ko waxu la sant loolu rek la bëgg xamal familière sa m'a lu mu wax yëpp donc danga yaakaar dangay dem nii ba sa après tu reviens dans ma vie du jour au lendemain comme si de rien n'était di xaar ma ñëw gàttandu la la maman ça va naka sa voyage ça a été L'une nga xaar c'est pas ce que je veux qu'est-ce que tu veux alors je veux retrouver ma fille retrouver ta fille donc tu as mën gëm que ni am nga doom donc tey ngay doog accepter que tu m'as abandonné bàyyi ma fii man cassé dans ce monde sans papa ni maman dem sa yoon tu as refait ta vie pendant des années après nga ñëw taxaw naa ma da nga bëgg a retrouver nangu naa ko Ami nangu naa ko Ami nekkuma fi woon mais sama loxo mësul jug si yow daawoo ma teg bët mais sama bët mësul jug si yow ndax li ma waroon si yow yépp maa ko doon def je me suis occupée de toi fay say études. et je m'excuse pardon mais loolu daf la war loolu soko defé c'est parce que daf la war motax nga koy def man j'ai pas demandé à naître bi ngay ëmb man je j'ai pas venu ne le moment dama bëgg ñëw ci monde bi ni non donc bu fi ñëw taxaw naan ma ay sama bëd mi ngi woon si yow même sama fi nekkulé wala ma ngi def sama. asaalaan tu as bien pu pardonner à ton père. je ne suis pas là pour ñuy xulo ay histoire ay détails tu as bien pu retrouver ton père baal ko ba tay jii di ànd et vous avez une relation si fusionnelle et j'en suis heureuse. jamais, jamais mon père à toi. Bachir il m'a jamais abandonné pour dem And ak benn monstre boo xamante ne moom moo yàq vie jamais il a jamais fait ça mais yo, t'as préféré dem And ak nit bi nga xamante ne moom moo sa vie wu

il m'a volé mon enfance et pourtant je suis mais ce que Tu as préféré nga dem nga abandonné pendant des années je veux retrouver ma fille donc je suis fi parce que je suis que fini. Des pour ça je suis ma papa, je suis ma mère, je suis ma quin. J'étais seule. Tu sais quoi? Là, a j'ai un problème. On dirait que à ton pas de ex خلنا نلورتك بنان ماي واخد عنك يوم تبسم جسمي دونك سامي الله يلتو Bon, ok, d'accord. Je t'écoute. Tu moi le T'étais obligée d'aller lui parler. Chérie, tu es sérieux Alors là, c'est Seigneur Carolal, je veux vraiment qu'on parle d'amis Je suis pas en train de parler d'amis. Je parle de toi et amis. Li nga def tay Mais chérie, lan de fa Tu T'es parti la provoquer, Malika. Tu t'attendais à quoi Ami, vous avez un fort caractère. Et on était parti pour à Abou et la famille, avec ce qui s'est passé avec la mort de Virginie, on n'était pas obligé de se donner en spectacle. Mais, chérie, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis juste allée me présenter mes condoléances. Et puis, je te rappelle que maman me perce. Ouais, les gars, Ok, d'accord. J'ai compris. Hé, eh, je suis sérieux là. Mais moi aussi, je suis très sérieuse. Est-ce que je peux te parler en tant qu'ami et pas en tant qu'époux S'il s'agit d'amis, je ne pense pas vouloir entendre ce que tu as à dire, mais bon, vas-y. Magnétique. Malika, c'est pas facile. Écoute, c'est pas facile du tout. su ma la instant bi ni yomb na damay fenn te xamul mu baax du ma koy là. tu l'aimes toujours hein. fais pas ça écoute, j'ai fait un choix. Et c'est ce choix que j'ai fait, mon yo et vinaigre et pas quelqu'un d'autre. Écoute, si tu veux qu'on avance avec ça et que moi je passe à autre chose, Malika, je vais avoir besoin de toi. Et là, t'es pas en train de m'aider du tout. Malika, est-ce que moi je peux compter sur toi Mais bien sûr que tu peux compter sur moi. Super. Je J'ai envie qu'on sorte un peu de ta Dakar, qu'on aille très très loin. Je sais pas moi, ça aller ou n'importe où. Plus Manakio. Dis oui. En fait, Virginie et moi étions en train de travailler ensemble pour euh, Daniel Abou. jour oublié de descendre descendre descente garage pour Jap Abou oto yi ak si gars dafa rëcc quoi Il daw jotuñu ko Jap, ça s'est mal passé mais jot nañu Jap quelques de ses gars on les a cuisinés jëm ont def tout pour nous voir. malheureusement amuñu dara gars ils veulent absolument rien dire dara ce qui laisse à croire que Abou franchement amna na len té té li gëna a compliqué la bi tamit moy Abou dafa am alibi en béton parce que Ouli ak Charles dañ nek di confirmer comme quoi au moment des faits Abou ñom la nekalon avec cette Sally qui est introuvable ma dem këram fekkuma ko fa jëm def tout pour retrouver ko rien du tout compliqué na dal en tout cas compliqué na trop instant yii mais man je savais pas que ni Virginie mi ngi doon ak police pour daniel Abou loolu waxuñu ko def ñu ko nëbb leena xam ko muy ñëwoon na ci man demandé mo pour ma jàppale ko mu retrouver Salim mais après waxuma kan la elle s'est battue mais j'ai pas dit ça yéen lan moo tax mënoo retrouver Salim yéen la waa police pourquoi ça traîne comme ça mënuma la wax mais en ce moment c'est très très compliqué au bureau. comment ça. compliqué en tout cas mënuma la wax mais bon pour le moment daal li ma la c'est très compliqué.

barka la allah ah ñewon na fi nak dem gisewuma ak yow tey nag delsi yalla indi wat na ma ma ñëw waaye nag li dox ci moy lama ma doon dox rek ki nak lima du deg ba lima bëgg dama ko am moy lan lima bëgg mu def ko yaram daw na bima ma fekk xalé yi ngeen tok sama xol bi dafa sedd sama yoon wi nak lima bëgg mu am rek la moma indi muy la ma waxoon ak moom seen diggante. yaay wax boobu bokkoon na li taxoon bëggatuma woon ñëw ci kër gi. Euh, Anita. tàmbali nga wax ji laay bañ jógal wutal ma lu ma lekk damaa xiif. yaay xam nga. déet damaa doxe coono dama rek wutal ma lu ma lekk ba pare. waaw wax boobu fexeel ba bu ma ko fekk. waaw baax na yow day man day man day wax dëgg jaaxal nga ma yow mii ah, waaye doxal Basir yow laay waxtaanal comme moom du dégg. Lima buku. bëgg mooy nga jël ko soxna ci kër gi la yaroo ku ko yar jaan xale yi tey xoolal bi ma fekkee ngeen entouré leen rek ni sama xol bi seddee tubaarkàlla dërëm bi génnul gaal gi la nga dàqee kéwél mu dem àll dugal ko ci biir kër gi dégg naa la bu baax fekk na sax lu jëm ci loolu maak moom waxtaanoon nañ ci alhamdulilah waaye mooy mbirum say bi parce que coow dafa jógoon ba ñu toog waxtaan ci anita li ma sonal nag moo sonal mooy bët bi ma koy xoolee bët boobu la may xoolee dafa nekk sama sœur jege ma trop ma mel ni sax daanaka que da mel ko nit dana jege ba ma mel ni da nga koo seexlu maa la détail te moom it noonu la mel ci man kii doo nga mun a sa jabar kii magam la moo topp ci moom gannaaw bukki mbaar gannaaw bukki mbaara fi sës te xale yi xoolal xale yi amuñ kenn ku leen uuf waaye waaye jël ko bul seexlu déedéet boo bàyyee keneen dugg ci biir jël ko man de loolu laay bañ fi mag laay wax de te moom laa dox si jël ko téye ko uuf ko mu uuf xale yi lépp di ci biir kër gi dégg naa la dégg naa la xam nga mag moom kenn du ko kenn du sànni ay waxam te it wax dëgg yàlla mi ngi toppatoo xale yi kama jël ko kama ñàkk ko jël moom mi ngi def rôle yaay dama la koo ñaan te moom laa dox si man daal loolu laa bëgg kii bañu la kii anditaa bañu la mënu laa bañ sax mais kontaan naa ci ñëw bi te sa chéri yi namu nañ la nam la jëlee guur ga teg ca kàmb gi daal ni na ngay fas yéene suul mu xotti malaat ma ni pëlet jóg daal di génn imam bas tànk ya ca sama kanam gi la ko teg rek jóg <laughs> dama yuuxu

damay dem di dellu di dem di dellu si bu buur màkk bi ma bul ajeeti vocalal boo vocalee ñu jot ci doy na sëkk nga may jaay jullite man damay julli julli julli julli ba dër ba fa lu mujj xotee kon waxi julli moom bul ko wax jullit nag julli ku nekk sa bopp la engage man samay julli maak sama soxna si maa koy def en privé nekkul lu officiel lu officieuse la ndaxi nag yàlla ci xol la nekk yàlla nekkul ci ay nii déedéet daa ko ñu jàng de bul ci wax dara bul jukki saar bàyyi lépp sedd kii nga gis nii seen sëriñ lu mu mës a ci aaya moom lay woo dafa julli ba jëwam a ngi nii gis nga ko nii ko mm. am hémorragie interne cette mm. suture ñu ñaw nga ni wax waxi hmm. ñun. pare nga discours wala dafa des. ci bëgg comme que say julli tout ça là c'est en privé amul benn problème C'est seen waxtaan bi seen xaaxataay bi ni que ça se fasse en privé am nga say appartement ak seen que ça soit la première et la dernière fois je suis dans cette maison et tout ça c'est fini de dafa chière. Hmm. tonton a été trop gentil avec vous man tonton man je vais mettre de l'ordre dans cette maison et ça va commencer à yow jugal. kan ngay waxal man. yow toppal sama baax na. d' accord yow mi ko bëggoon nag samay wax jàll muus yaa ni woon moo la ko gënal. gënal amee nga ne baax yaru. teel riis xol bi yaatu. mu uuf ñëpp waaye nit ku siis na six mille six cent soixante six waaye yàlla bëri na. su moom sa ami sa ami kii ko bëgg. non non non non ami sa kii ko bëgg. moom waaye ñi ma xam ne na éboog la. mel na bañ a fëri. a ah ponkal sax da baax waaye ponkal ba pare sànni bu bon. baax siis kër gu yàqu gii nga ne kenn du toog waxtaan na mu dem toog suñuy appartement ñu mel na ñu sol saako nii. na ñu dem te bu ñu ñëw ci fii bu ñu amee jom. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va, oui. Euh, Anna ah, chérie, pourquoi tu joues avec les poupées là Où sont les poupées noires que je t'ai achetées Tu sais très bien que beaucoup de fois avec poupées tout papier. Anna Yenani Je t'ai jamais acheté ce genre de poupée, ma chérie. De ça m'a Fifi, si je suis avec toi, tu je ne veux plus jamais que tu joues avec ce genre de poupée. Est-ce que Dengama hein? prends celle que je t'ai achetée Et puis, il y a il fait tard. Malika. Oui, chérif? C'est quoi ton problème Malé gis nga qui ci kaw libaas ak et maintenant yaa ngi ci xale surtout sur Anaeva moi c'est un problème exact. Chérif, c'est toi qui as un problème avec moi. Je sais pas, non, le Sofia Doul, Abdul mais ça, tu n'avais pas à le faire. Afabi, Manak Sofia Le Yor, so aussi. Tu devais venir m'en parler à moi d'abord avant d'aller lui en parler. Et puis, demande le Dara. Que ce soit la première et la dernière fois que tu interviennes quand je parle à ma fille. Est-ce que dingue moi hein? Exactement. Anna Eva n'est pas ta fille. Guinée l'or Et puis, elle s'appelle pas Fifi. Anna Eva, Domo Amilea. J'arrive sama doom là. J'arrive, bul 18. mais qui, mais qui dafa dof. Votre série revient après la pub. Allez, boitons-les à Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. Toute la famille veut du Mélolac. Lac est un produit fabriqué par Senfood Sénégal. CCBM, Industrie Automobile, distributeur des marques Volkswagen, Aval, Credwell, Chery, Lovell et Sinotruck. Un service à vente de qualité avec un dépannage mobile 7 jours sur 7. Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Santex, votre première défense contre les germes et la sécheresse de la peau. Scanner, c'est payé. Wave Saralis Yaiborom. Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. arôme épicé resto axo soja resto moui bégé Avec Ridouane, j'ai choisi le bonheur comme cadre de vie. Certem la passion du défi, l'exigence de la qualité. FPT ñoo ni dem ci pôle emploi et entrepreneuriat des jeunes et des femmes te espace Sénégal service ñu commandez en ligne sur www.6.9.sn 6.9 la marque de l'élégance. Vos produits authentiques Belle Nubian et Françoise Bedon sont sur SunuShopping.com et d'autres gammes de produits corporels pour faire de vous des thèses. Téléchargez vite l'appli mobile. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. RFI Prix Découverte 2021. Voter pour H de Best, c'est voter pour la passion, le talent et la musique. Lien de vote en commentaire épinglé. na ngeen def. ça va yéen ci jàmm. ça va ça va bien. waaw mën nga jotoon léegi waaye. oto bi dafa rafet. ah oto bi waaye gis nga de yoroon naa si carte mais bii rek si des quoi. kan moo ko si bëgg yow wala madame. ok super. mais chérie. oui yow xam nga woo kii. oui c'est vrai je le reconnais ah. yow yaa rey sa jabar non. soxna si fan laa rey sama jabar. mais attends yow ya, la. du man nit ñi dañuy nekk di wax mais man mënu ma rey sama jabar. kan mooy rey sa jabar. non ñun jëndatuñu oto. chérie on y va yow man loolu man sax mënuma jënd oto koo xamante day doo jigen di ko toroxal. non mais yow nañ la ci quoi. Eh, gue. xam nga gaan bi yow. ki moo rey jabaram. kii vrai rey katu nit la. yàlla na la paquetage. double crime la rek te jabar ji daa amul double crime. te doo nit. assassin tefe yaa nga rek rey katu nit. ak katu nit. Fais, de fille. man bu bëggee le commissaire Béni. il joue pas franchement avec nous. non je ne pense pas. Bah, c'est, quoi Sur quoi tu te bases pour dire ça Man, je pense qu'il est de mèche avec le papa de Non, non, non, non, loin de là. Je ne pense pas. Ah ouais Ouais. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Les gars, malade. Qu'est-ce qui expliquerait le fait que appartement bi ñu gaaw ko delloo propriétaire bi raxas foofu mu clean deret bi fa nekkoon on n'a même pas eu le temps examiner ni na xam deretu virgin la ou pas en plus arme du crime bi ñun leer ma ne mu ngeen foofu ñun lu lu tax commissaire patam patame dossier bi nii vite fait tu peux tu peux expliquer ça ba pare ñun yëguñu si dara waxuñu dara dara dara dara wala yow da nga ko yëgoon. non non non loolu la maintenant que tu en parles c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. voilà c'est compliqué c'est compliqué. voilà gis ngeen xam la laa bëgg affaire bi len dong la gis ngeen bàcc ma sàmb laa bëgg ngeen defal ma si moom enquête parce que gaan boobu xaw ma entreprise la yor lu mu yor na leer parce que sama xaalis ba pare ñëw si suuf taxaw di ma kokkali quoi mel ni moom gagné na quoi te xamul ne ko gën bandi lijjanti leen ma loolu lijjanti leen ma ko. abu ban bàcc ma sàmb. bàcc ma sàmb Fall. ki yor écurie te yow la. mom la d'accord bien. ko xam yow. Abou mos naa liggéey ak moom et c'est un bon ami à moi Abou kooku moo la alal deux il est irréprochable te entreprise yu bëri yi ngay gis ci dëkk bi yor na ci ay part je pense pas que mu yor sa il est respectueux respectable très cool séduisant d'ailleurs et c'est pas un bandit comme toi. gis nga yow li ngay yéen ñaar la quoi yaa ngi dégg xam la mu bëgg nga indil ma information yoo xam Dina dinaa ko mën utiliser pour bàcc ma sàmp moo gën a ñor li nga may wax je m'en fous ça c'est pour toi yow damay génn dëkk bi demal nga lijjantil ma bien wala nga lijjanti fu ma mën a jaar ba génn dëkk bi naa jaar si gaal yi muy gaal yi di bato yeeg fu mu don, doon man naa mais loolu mënul nek. la ma tax mun mënuma génn dëkk bi ah, fan nga teg ne mënuma génn dëkk bi eh, mais da nga am dossier waaye ban dossier

fa laa yem ak yow. xoolal ma ku bëgg xaalis kii mu mel ni pune nii j'ai l'impression que toi et Abou vous ne me dites pas tout su fekkee dafa am lu ma war a xam s'il te plaît Charles xamal ma ko mais lan nga fi wara xam gisoo Abou pression bu ñu teg nañ dem régler li man bëggatuma dugg ci beneen merde nañ dem. Charles je suis pas bête yaa may dégg parce que si je dois protéger abou protéger la yow foog ma xam lépp donc vas-y tu sais très bien que tu peux me faire confiance. Abou a tué Virginie. Quoi Ouais. Non. Abou, il t'a dit ça mais bien sûr moi, je ko wax moo ko je ba voilà. oui c'est ça c'est pour ça que keroog ngeen jëlee ma sama cœur pour que je me démaquille à la police et dire que on était ensemble. moi aussi vous manipulé. mais toi ah au moins une fois dans ta moi aussi j'étais été manipulé dama foog ne Virginie dafa daw wala problème mais comment on a ay affaire de meurtre là. est-ce que tu sais Lily yëpp lu impliqué on est maintenant des criminels on est mouillé jusqu'au cou. On... Fille, Mais bien sûr qu'on est mouillé jusqu'au cou. On est foutu. <laughs> Est-ce que j'ai la tête d'une meurtrière, putain Et moi, j'ai la tête d'un meurtrier xoolal faut mu toll une solution parce que là on est foutu. Halat Halat imbécile comment je vais réfléchir. Oli, c'est la prison qui nous attend. Yen la une àdduna man merde ma mère de franchement on va devoir prendre cette affaire nous-mêmes. mais comment comment le commissaire comment allons-y de par notre instinct mais de il y a y avocats des qui ils en savent plus qu'ils ne le prétendent on va devoir creuser sur ce côté-là. Ça, oui. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont vos compétences est-ce que vous voulez bien, dans un premier temps, me parler de votre euh, parcours professionnel Ah, amenata. mon parcours n'a pas été si long que ça. Moi, j'ai juste organisé des ateliers de formation et récemment, j'ai été chef d'équipe dans une station de service. En gros, c'est ça. c'est pas mal, c'est un très bon début. Euh, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez particulièrement faire dans votre activité professionnelle en réalité, j'aime bien organiser et rassembler des gens autour d'un projet commun. Ça, c'est très bien, c'est très intéressant. Et pour aller un peu plus loin, j'aimerais mieux vous connaître. Quels sont vos combats personnels ce son est Voilà les questions que nous posons tous. pense la fondatrice de ce que ça va Oui, oui, ça va, ça va. Puisque je connais cette fille. D'accord. Je pense que je l'ai croisée une fois et je la reconnais. C'est bien elle. Donc elle a vécu tout ça elle aussi Elle aussi Je vous sens particulièrement affectée. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'arrête là pour aujourd'hui Non, hmm, ça va, ça va, Amenata. on peut continuer. Dites-moi. Je vais vous confier une chose aujourd'hui, Amenata. J'ai subi des violences conjugales. Oui. J'ai été maltraitée par mon mari. J'ai été battue. J'ai été violée à maintes reprises. Et c'est ce même homme qui a osé violer ma sœur. Et tout cela reste impuni. s'il y a un combat aujourd'hui que je veux mener, c'est bien celui-là. Pour permettre à ces femmes de ne plus vivre ce que moi j'ai vécu, ou bien ce que ma soeur a vécu, ou bien de finir comme cette femme. Car beaucoup de femmes aujourd'hui subissent ces violences sans avoir la force d'en parler. Lisa, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous aider à mener ce combat. On va organiser ça ensemble. Pour ça, comptez sur moi. Et je compte bien mener ce combat. Afin de rendre justice à toutes ces femmes qui ont vécu la même chose que moi. Anita, je ngi wax ci sa xaw ma jikkooy tubaab ngay jaay xaw ma jikkooy lan man xaw ma danga am rab xaw ma loolu daal man damay toog ba ci yàgg sax damay jaaxle ndax yow mbirum euh, sëy ku la ko wax nga ne tey nga dee foo ko teg ci fan nga ko teg pour lan basir mi tey mu jër la ci kër gi nga uuf xale yi moo gën tey nga génn ca biti dem doy ci kër jàmbur xale yi yaa leen jur xale yi say doom lañ boobu ba tey maa ngi wax nangu woo maa uyu su ma waxee doomu faale Jeanne dañ daan waxtaan am na lu mu daan wax ak man te loolu yëpp mu ci sama bopp Bachir mii munoo am ku ko gën te nga sëy ak Bachir ëmb xale yi doomu jaan yi ci biir kër gi ñu bañ a tumuranke ay Anita dëgër nga bopp yaay sëyuma ak Bachir tey sëyuma ak moom suba xale yi mënuñoo tumuranke ah li ma lay wax mooy de lu tuuti maa ngi wax rek yëngal naa ko te bu ne faale woo ma est-ce que xam nga ne jiboom ci dëkk bi jiboo ban

Je amul dama daan déggoog sama doom Jeanne xam naa ci lu bari ay xale bi ubbi sa te la ne bés bu jibboo egsi na bu ko basi takkee ci kër gi di nga xam ndax di nga te leer na man ma génn kër gi ndax bu ñëw <laughs> loolu ko pour mémoire Jeanne hmm. Bachir du nangu loolu te du ma ko seetaan ci dara de dañ koy le ko di nga jiboo dem wala nga euh, bañ jiboo dugg toog uf xale yi jeex na. bu dee Jeanne bateau la woon man double bateau laa jibo du ma bougé loo te Bachir du takku jibo pour que koy takk. d'accord baax na baax na li ci kanam yaburi gër nañ dem nañ ci fekk ak jàmm. bisimilah kon baax na kon baax na. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. ba yaa ngi tane. bu ndaw rek. massa massa. yàlla na ngeen ci paj mi noonu bu baax fële. ah xool nañu fépp xool nañu fépp on a waaye nag xam nga rek mbir yàlla moom mbir yàlla la. massa massa ah wax dëgg yàlla de lii bu doon lu may tege dara du la jot sama waa kër yi njaboot gi yiir nga leen. bëgg nga leen suturaal nga leen jibo defal nga ko teraanga bu nekk li nga defal sama doom ji duma ko mas a fàtte. waaw moo ma ko jiñ nag ma la yàlla may wér yàlla sa bopp waa ma bàyyi la nga dallu. ñaanal leen ma rek dinaa fi ci lañ dëkk dañuy ñaan sa bopp. Ça va, chérie Ça va. Tu as faim Tu veux manger maintenant ou la dernière fois, ce On attend un peu, j'ai pas trop faim. D'accord. Je vais te avec maman. D'accord. Ok. Wa je suis de dama am m'embêter. yow boobu nga naan ma Badou dafa feebar Badou dafa feebar waaye ndika moom feebar bi egg na fii Badou kenn xàmmeetu ko sax nurootul sax Badou mu ngi la ko jeexal tàkk soppeeku ah man de man de feebaram bi tiit naa ci. ma Badou dafa sonn feebaram bi lu nekk def nañ ko si fu nekk dem nañ fa pour faj ko. dem les États-Unis France finalement ñu mujj au Maroc pareil c'est ñu décidé waaw bisi man ma defal ñu dañuy di en Europe ngeen del di ko Europe di ko faj ci fi. ban façon faj ngeen ko bëgg a nonu fi. maman bi fu mu nekk dafa yegg stade boo xamante ni kenn mënatu ko faj cancer la am subhanallah waaye sa bu baax te médecin yi dañ koo jox àpp loo tax ñu ñibbisi xam ne lépp lu ko munti dal dina fekk mu nekk ak ay mbokkam xaalis moo ngi nii. Fatima Samb lan nga bëgg. ndànk-ndànk rek faam gis nga ma bëgg yow mënoo ma ko jox te mënoo ma ko dellu. ana sama oto. an la dal rek yëpp a ngi fi. Fatima Samb yow lan lan nga bëgg yow nooy jëlee sama xaalis andi ko fi te doyewoo ko dara lu dul lan pour sonal ma quoi. Baca ma sàmm lan la lan mooy sa problème da nga bëgg sama ay business wala da nga bëgg sama ay oto wala lan nga bëgg yow fan nga soxé ko fan nga juggé man xawma la. Abou Kébé da nga yaakaar ne yaa ngi ñëpp a am na ñoo xamanté ci kaw suuf alu àdduna sonu leen da da fay jeex ay kay dong la gis nga bala nga xam dara bis bo faato juroom ñaari mètre percale dong yi ñu lay ak sa jëf yi ñu fay fekk. léegi sama xaalis pare nga si soxlawoo ko ah soxlawoo sama xaalis ay jëlal ma xaalis bi ñu dem. ma ne ma te dama bàyyi nga amu kebe tey laa lay wax dëgg buy tàkk te du fay. bayram dama la wax ni bo beugé gis valeuru nit dang koy guéné lepp li nga xamante moy am xam xamu àdduna xaalis auto kër yéré gis mu lol dañi ci ngay gis dëgg dëgg nitu yalla ñi nga xamante seen nekk ci kaw suuf nekk woon lul suuxat ay jikko yu baax. ma sama yow la nga bëgg lan moy sa problème. yow lan laa la def lan laa la def laa bëgg xam lan la. sama rak bi nga xamante ne moom laa gënoon bëgg sama xol teg ko fa sori yow moom nga rey. bàyyi ci ma sàmm da ngay duul man reyu ma sa rak man du ma rey nit man reyu ma nit. Abou Kébé yow dama toppoon sa xaalis rek jëf yu bon yi nga naan def yëpp mënoo koo gis. bu doon lakk say tànk sax doo ko sentir mais léegi def yi xam naa ko yaa eh Baca masam, eh Lo def ni yow Bàcc Masamba bal ma ak Bàcc Masamba maa ngi baca masam. Masamba li nga def ni tegoo ko fenn bo bëggee xaalis bi yëpp yëpp yëpp yëpp mën naa la ko jox lo ma si jox baax auto oto mën la ko jox xolal buy ma jégal ma saa yi bàyyi la ma ma jégalu kii waay xoolal bàyyi ma sàmba eh yow laay waxal jégal ma li nga àndal jox xaalis jox leen oto jégal ma xoolal non. Abou Kébé parce que yàlla suñu borom dafa wax si benn mu ne yéen ñi nga xamante ne da ngeen a juum def ay ñaawteef def ay bàkkaari bàkkaar ak lu mu mën toll bu leen mën moom mi nga xamante ne mooy aji yërmande amul kenn ku mu baal si àdduna amu kebe man du ma yàlla